seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbale yër ak mbiru Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall njortoon nañ ko xamoon nañ ko leeroon nañu bu baax a baax a baax ne justice bi li Macky Sall bëgg lay def yéenekaay yëpp nag xëyee mbir moomu tey yéenekaay bi di Sud Quotidien nag Karim mën na toog Qatar ndax nag du bara bokk ci élection présidentielle yi xalifa Sall moom day continuer xeex bi ci wàllu yoon day dem cassation course présidentielle 2019 Karim Wade écarté xalifa Sall mi ngi ndege nii loolu la ñu 24 heures waax verdict gi démb la daanu. yéenekaay bii nga xam ne moo di Walfadjri ne dafa mel ni Demba Kandji sax dafa gën a dëgëral daan ñin daan xalifa Sall ba tax Khalifa Sall fi mu nekk nii l'observateur na mi ngi salle tant léegi ñu ne ko faraax génne moom it ci élection présidentielle yu ñu jëm maire bu Dakar yéen kaay bi l'observateur ne awma ci njort lu rafet de du bokk ci présidentielle 2019 yi boo leen demee moo ne de avocat maître Clédor Ciré Ly ci biir yenekaay bii di enquête ne ba tey jii dañuy wéyal xeex bi ci wàllu yoon Karim wàdd lu ko dal yéen kaay bi l'observateur ne Cour suprême moo ko fëgg fëgg bu rëy boo xam ne démb mun a fa lompoñ lompoñ boobu lan la requête ba mu dugaloon la ñu xotti sànni fële biir géej Madické Niang mer lool ci biir yéenekaay bii di enquête ne système judiciaire bii moo ànd ak nguuru Macky Sall ñuy def lan liquider adversaire u Macky Sall yi loolu rek lañ leen di jëriñoo PDS ne Macky Sall dafa bëgg xeex billahi di leen xeex ak moom loolu la wax ci biir yéenekaay bi du wal fajri Macky Sall veut guerre il l'aura loolu la Omar Sarr wax ci biir yéenekaay bi du l'observateur justice fi mu nekk nii raxasal Macky Sall ba mu set ñaari kaay Karim Wade Khalifa Ababacar Sall yéen kaay bi la témoin ne man la jommi naa maa jommi jomeet cour suprême cour d'appel benn bés ñu àndandoo bennoo def lan dàq ñaari ponkalu candidat yoo xam ne Macky Sall moom la gën a ragal moom la gën a ragal ci élection présidentielle yi kon kay suñu justice bi am na tur bu bees bennoo bokk dàq ngir jariñu Macky Sall loolu am te nag Macky war naa sar xole de kontaan lool yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Quotidien ñaari cas yi nga xam ne ñoo ko gën a lëjal te gën koo tere nelaw ñooñu ci boppam justice bi def na fa liggéey bu set wet dàq na leen ci biti source a na Macky Sall ba mu toogee ci bopp réew mi ba tey ji nu mu nërmalee justice kenn mësu koo def ci àdduna kenn mësu koo def sax ci réewum Sénégal gii moo ne de benn ministre am gëmul na day gagné présidentielle yi ñu jëm Dakar Time nee na ba tax ma ngay jaay këram bëgg a daw Sénégal ca booba nekk ci tolof tolof yu métti lool Vox Populi na taw bu fi wàcc tax na mbënn mi tàmbaliwaat. am na ñaari soxna comme 35 ans 82 ans yu faatu ca Pikine ak Cambérène kart yu baree bëri ci Ndakaaru ak Touba mbënd mi songu na leen waa Daaru Xudóos ca Pikine nee na arène nationale bi nu fa tabax moo tax inondation am fa communauté Murid Thiès coow bari fa ñu jàpp ci juróomi taalibe ñaari doomu Serigne Saliou Touré loolu ñu yéen kay Les Échos waxte ji ku plante plainte Serigne Moustapha Lakram Mbacke mooy coow loo amoon ca Thiès. yéenekaay bi di Les Échos benn scandale ngi nii ci groupe Facebook Femme Chic l'officiel dafa am benn soxna bu fa ñëw di yëgal na moom dafa am sida séropositif la ay millions yu bari nag ñu jox ko ko waaye police yëmbal moo ko piégé na ko nii jàpp beneen scandale bu rëy rëy yéenekaay bi Les dikk ci tey jii doomu responsable APR e ca Touba Pate Jaxate moom moo lijjantil passeport diplomatique doomu Ablaye Mbaye Peex bu jigéen kon daal suñu passeport diplomatique yi pinton la léegi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Sow Diagne suñu site Dakar point com incha